إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولي بوكي طالبي ñu ngi leen di jottali ab nuyoo ci turu mboolem waa daara Hizbu Tarxiya ci liggéey bu màgg bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ñu ko boole woon ak sunu kilifa sëñ Hamsatu Mbàkke moom soin bu muy taxawu bisu xasida bi nga xamante ne bis bu màgg la woon di boo xam ne kenn ku ne ci nun xam nga ne bisub ndimbal la bisub xéewal la boo xamante ne lu bàyyi ko ci yàlla sunu borom sëñ Tuubaa di ci dimbali jaam yàlla yi lislaam jëpp xam nañ ne seen ndimbalal tey ak seen ndimbalal ëllëg xaj na ci bis bi ñuy sant nag Cheikh mun taxaa di ko ñaanal yàlla suñu borom bàyyil ñu ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér li mu yéene te naal ko ci liggéeyu maamam ju tedd ci naal ko ci toolub lislaam yàlla suñu borom defal ko ci lu kawe njort yëpp xam nañ ne de yitteem ak yéeneem ah, ak tolluwaay bi ko seexul xaddim jox dëppoon naag fii jamono toll jël dong yëpp jëli leen fi ñu ne ak li nga xam ne mooy xëccoog ñoom muy àdduna ak bakken ak bànneex ak seytaane mu jiir dong yëpp jël leen yóbbuwaat leen ci Serigne Touba ba tey ji kenn ku ci ne taxawaayu mag ñu jëkk ñi yaanoon ak sëriñ bi mu teg ko ci sa kanam wan la ne la amal jom amal pas-pas war naa mën a ne na ko Cheikh Abdoulahan Mbacke mu baax mi daan waxee ñu àndoon ak Serigne Touba suñu gañee ci moom. nañu xam ne moom day digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay junni at laag lu topp te ña àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gañewuñu ko ci moom kon ñun nag suñu digganteek Serigne tubaa barke démb ndo dong la kon ña àndoon ak moom bu ñu añ ba gañee ci moom rek suñu yitte ak suñu pas-pas moo des loolu nag noo ngi koy sant moom Cheikh mun Mountakha ci loolu di nag sant njabootu Serigne Touba gépp ndax xam nañ ne bis bii ak ndigal lii ñoom day taxaw nañ ci kenn ko dee ci ñoom sa kër sa ëtt say pénc ubbi nga ko yaatal ko noo xamante ne dong yëpp lañ doon jëf sa jëf sax moo ca jiitu moo ca gën a ràññeeku ngir bés bi mel ni ko sëriñ bi bëggee amuñu seenu pay mboolem pénc yi nekk ci Touba fen desul mboolem kër sëñ Touba yi ci biir réew mi ci bitim réew fen desul taxawaay bi dafa maase loolu nag lu rëy la loo xamante ne ni xol yi àndee jublu ci ndigalal Cheikh Mamadou Mountakha loolu dafa bare lu ci suñu borom dëgale loo xamante ne baax nañu fàttaliku ko ngir dongo yi xam ne am nañu lu rëy loo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ñu ko fàggul Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ne dafa daan wax ne suñu góor góorloo ci àndee ni nga xamante ne moom la yàlla suñu borom wax ne wa taawanoo alal birri wa waa wala taawanoo alal ismi wal udwan suñ ko defee dinañu jural ñett dinañu jural cofeelug yàlla suñu borom dinañu jural yàlla garantinu dinañ jural yàlla suñu borom ndox suñu diggante ak seytaane cofeelu yàlla gi nee na inna allaha yuhibbu lazina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus nee na moo ñu koy may dinañ jural tamit yàlla suñu borom garanti nu garanti bi mooy walan yaj'ala allahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabila nee na lan arafu dàq la yàlla suñu borom bu xasee wax la doon dàq da lay wóor ne dootul dellusi kon loolu ba tey ànd gi ak boole suñu bopp ci dëgg ak lu baax moo ñu koy jural ñetteel bi it mooy yàlla suñu borom dox suñu diggante ak seytaane ndax daf ko wax ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka min alxaawin kon loolu mooy suñu diggante ak seytaane ku ne xam na ne keroog ci bis bi nga xam ne mooy bisu xaside bi seytaane daw na yuuxu na sori na te bu soree rek na jege ñu kon nañ sant yàlla bu baax te ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha yàlla suñu borom fayal ñu ko ñoo ngi sant itam euh, niñ ko waxee ci njabootu sëñ Tuubaa gi tey jii ki nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi di sëñ Mouhamadul Bachir moom sëñ Abdou Khadir ndax taxawaay bi mu def ak wàllam def na ko ba mu mat waaye yamu ci ñëw na ànd ak magam ju baax ji muy sëñ Xamsatu Mbàkke toog ci wetam di jàng xaside yi nekk ci penku jumaa ji loolu nag moom doon na liggéey bu rafet boo xamante ne xame nañ ci ne noo bokk yitte noo bokk bëgg noo bokk bañ di sant nag ba tey ci waxtaan wu tedd bi nga xam ne Cheikh mun taxa dimbalee nañu ko ndax bis bi moo ko ubbi moo ko tëj bi mu koy waxtaan woowu itam ki ñu ko jottalil te dimbalee nu ci buñ ko tuddee rek dafa mel ni tudd nañ njabootu Cheikh Mouhamadou Bachir gépp ndax sëñ Moussa Nawel euh, moo ñu jottali waxtaan wi di ko di ko jottali sëriñ bi mu jottali mu jotal mu jotal lool bu dimbaluñu lool ba ñu mën a taataan kaddu yi nga xam ne ay kaddu yi seere mi ngi ci biir te sëriñ bi seere nu day amuñu lu ko gën a rëy ndax moom day tey jii seere la ci képp ku yaakaar sëñ Tuubaa te muy dëgg waaw moo la mën a seere tey moo la mën a moo la mën a seere fi kanamu sëñ Tuubaa kon bu nu seeree fii te lu mu wax mu mu doon kaddu goo xamante ne rëy na ci ñun lool mënuñu dul ñaanal ko ak nag yeesalaat suñu jaayante te fabuwaat nag xool fi mu nu fi mu nu xolloo nu nu wutali loolu mooy bañ a gestu ndeyjoor bañ a gestu càmmoñ jëm ci Serigne Touba kon jërëjëf Cheikh Mamadou Mountakha ñoo ngi koy sant bu wér di sant nag mbokki taalibe yëpp ci pas-pas bi ndax Serigne bi ni mu ko waxee ah, man de waxoon na ma ma jottali ba mu leer nañ ne ñi nga xam ne ñooy jànkati xaside yi ci rawatina waa Hizbut Tarqiyyah ci biir réew mi bitim réew naa leen woo jànkatu ñi nga xam ne dañuy jàng rajas ak ñi jàng kuréel boole ko njabootug sëñ Hamsatu bi nga xam ne ku ne xam na leen ci durus ak yëkkati xasida loolu mu ne nañ ko def moom mu mu mën a tàbbi ci biir pas bi mu am ci bis bi jàppoon na ne loolee rek bu amoon dina am li mu bëgg waaye taalibe yëpp wane nañ ne kenn nanguwoo koo bàyyee sa morom ku ci ne bëgg bokk ci alu xasida loolu nag yokkute la dox boo xamante ne am na ci yoon bi loolu nag Cheikh Mamadou Mountakha moo ko fa yóbbu yàlla nañu ko yàlla fayal loolu nag kon euh, laaj na ak cant waaye laaj na tamit ñu jëlee ci ak jàngat boo xam ne daf ñuy dimbaliwaat ci ni ñuy doxee euh, ci biir loolu bàyyiwuñu kenn du jànkat yi nga xam ne jàngatu durus lañu du ñi nga xam ne tamit ay jànkatu yëkkati lañu du ñi nga xam ne tamit ñoo yoroon wàññi kenn ku ci ne la nga doon def doon na loo xam ne mënta ñàkk ci bis bi te yërmande ak ndimbal ak boole gi ñu boole suñu bopp moo nu may nu mën a def loo xam ne ku ne xam ne ne bu ñu amuloon garantie suñu borom dina doy war waaye dara loo xam ne am na fi ci ay wala jafe-jafe amul dara waralu ko lu dul boole bi ñu boole suñu xol loolu kon ñu ngi sant bu wér ma ñëw nag ci yenn ay jàngat yoo xam ne rek dama bëgg nun dong yi nga xam ne amuñu lu dul sëriñ bi yaakaar ñu lu dul sëriñ bi te ndimbalam ak ngërëmam ak yërmandeem rek mooy suñu jublu mooy suñu pas-pas dañoo war a xool yan jàngat la ñu war a jëlee ci bis bi li ci jiitu kon mooy nanu xam ne diggante mbooloo ak moromam frontière amatu ci barrière it amatu ci ndax tur woo ci jël boo ne xisnu labraar wala nga ni wakaana xaqan wala nga ni bu tarxiya wala nga ni wasilatu ruboo loo ci tudd rek tur woo ci jël ca borom lay dellu muy seexul xaddim kon nag tur wu ne jëmm lay woo loolu kon baax na loolu ñu xam ne kon nun dañoo dañoo bokkub liggéey kenn ku ci ne fa nga féete ak sa moroom fa mu féete buñ ko boolee rek ci la ndam di am loolu ñu ngi ciy sant bu wér am na it lu feeñ ci cofeel su diggante ak Serigne Touba muy cofeel goo xam ne taalibe yi wa wane nañ ko waaye tamit Serigne bi seere na ko loolu nag lu ko gën a rëy ci sunu dund amul ndax sëriñ bi day lépp lu mu am cofeelam ci yonent bi sa alayhi wasallam moo ko ko may waaye nun nag suñu diggante ak Serigne cofeel gi ñu am ci moom lu nuy am nu koy may Sénégal day ñu ngi xëccu naan. pétrole am na fi Sénégal dañu ñuy xëccu naan zircon am na fi Sénégal Sénégal dañu ñuy xëccu naan richesse bu ne am na fi waaye day richesse bi gën a wóor mën a yor suñu tey defar ko mën a yor suñu ëllëg defar ko mooy am seriñ Touba loolu war naa tax waratuñoo jaaxle kon tey jii nii ndaw yi ñëw jëwee jógee buur jëm ci bëgg Serigne Touba tax leen a wan ginnaaw am po tax leen a wan ginnaaw ay caaxaan tax leen a wan ci ginnaaw lépp loo xamante ne dafa jëm ci këru seytaane jëm wutali kërug rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ànd ci ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne mooy sunu wasila di sunu yaakaari tey ak ëllëg loolu kon xam nañ ne mooy ndamal réew mi mooy ndimbalal réew mi waaye mooy ndimbalal lislaam bépp ñu bëgg wax itam ñu xam ne euh, bis bi dañ ci war a jànge liñ ci war a jànge mooy nii ñu àndee bés bi noonu rek la ñu war a màggale noonu rek la ñu war a dundalee li nga xam ne mooy bis yu màgg yi nga xam ne sëñ Tuubaa woote nag rawatina bis bu màgg bi nga xam ne mooy bisu màggal du bis boo xamante ne dañuy rombante rek du bis boo xamante ne da ngay da dem ci ay xumbeel du bis boo xamante ne dañu war a nekk ci loo xamante ne euh, bu la ci sëriñ Tuubaa fekkoon jataay ba soppiku déedéet dañoo war a fexe ba nii ñu ko defee woon ci xaside yi loolu ku bëgg ngërëmal sëñ Tuubaa ci loolu ngay sax nekk di jàng alxuraan di jàng xasida di di di berndeel di sellal ak moytu lépp loo xam ne lislaam bañ na ko te xam ne sëñ Tuubaa sàmm lislaam ak yëkkati lislaam moo taxoon mu gàddaay bàyyi ak njabootam bàyyi ak réewam bàyyi ay taalibeem ñëpp wan leen ginnaaw dem liggéey yàlla rek tax ko jóg liggéey liggéeyam boobu ba lislaam bépp mën cee jëriñu ba tax mu naan làqukaay la wéerukaay la ku bëgg a mucc àdduna ak alaaxira na ñëw làqatu ci moom kon nañ xam ni ñuy làqatoo ci moom mooy sax ci ay ndigalam lii kon dafay jàngat boo xamante ne su fekkente ne màggal jot na pénc moo dem ci Touba fekk fa mbaar yi am ci pénc bi pénc moo dem ci Touba fekk fa ñiy durus xaside yi pénc moo dem ci Touba fekk fa ñuy jàng alxuraan pénc moo dem ci fekk ñuy lay rey ay nag lewetal ak jur di di def ay bernde di ko yaatal te amul xëj ak seen màggal gaangoo loolu kon ñu ngi ciy woowaat bokki taalibe bi yëpp ñu gën a mokkalaat lii nga xamante ne mooy bés bi lii daal mooy kàddu yoo xam ne nun dongo yi sañ nañoo soññante ndax Seex Mamadu Muntaxa wax na ne taalibe bu ne sañ naa socc bopp soññ boppam waaye sañ naa soññ itam mbokkum taalibeem ñu gën a xamaat ne rek ñun ñëpp noo soxlawoo sëriñ bi waaye sëriñ bi soxlawuñu waaye yàlla na nu dollee dimbali ba kii di Seex Mamadu Muntaxa fi mu nu jëmee nu ànd ak moom ba àgg ci ngërëmal sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ilal kitaabi wal hadiis insarafa